يا من له الأمر يا من لا شريك له وسوى ما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتديا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أزاري مراسي أجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليم يميني وقل بزول يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا عني وعن كرادي تدار يا الله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 li اخترته يا الله كرهتني كل في كبر بلا كل في يا متكبر تل كل يا الله يا خالق الخلق لما أساء أبدا بالبر والسلوى rilwaani yaa laaw yaa baari alxalqi xut li naa fa doonaasan waxundiyal ajralil janaati yaa laaw antal qal li lil nabi busaaran wasawiran liyaadoo nal makri yaa laaw خلعت لي كل سن بالغاد أتيت بي لزاد بسكريا وابح يا الله خلعت لي كل سن بالغاد أتيت بي لزاد بسكريا خضار يا الله خلعت لي ربيعك داعي بلا سبب مني عمدتك يا خار يا الله وابتلي منك سهلا فاخ مسألتي فلا كسب ريايا وأبح الله في الأنبياء والمرسلين ضيوفنا الكرام أه خدام القدس الشريف الوفد الكريم ضيوفنا الشرف ضيوف الخليفة العام للطريقة المريدية نرحب بكم مرة أخرى بعدما رحبنا بكم في دار الخلافة وفي مقام مولانا الشيخ أحمد بن رضي الله تعالى عنه وفي المسجد الجامع وفي المكتبة أي مكتبة طوبة ها نحن أهل طوبة جميعا نرحب بكم مرة أخرى باسم من أمرنا باستقبالكم هنا في هذه البقعة المباركة وهو الخليفة الشيخ محمود المنتقى هذا المكان بيت من بيوت الخلافة العامة للطريقة المريدية مركز دائرة حزب الترقية وهي مؤسسة الحمد لله كبيرة جداً mutanawia thaqaafiyan ilmiyan iclaamiyan ruuxiyan tatbaa lilxilaafa alaama li tariqa almuridiya maanaam ya yaaxuzu alawaamir min alxalifa alaam wa haa huwa axuuna asayid Youssouf Diop huwa mudiru hada almarkaz wa hada almarkaz aydan huwa almaqar allazi ixtaara alxalifa alaam li yatawalla diyaafatakum insha allahu taala fi hadihi ziyaara al maymuna fa marhaban bikum fi hada arrihaab tahir dairat xizb tarqiya li riasati sayid Youssouf Diop zaim li hadihi almajmuca almubaraka wa hadihi almuassasa allati qultu lakum muassasa mutakaamila cilmiya saqaafiya ruuxiya fi aclaa mustawayatiha wa qultu lakum tatbac alxilaafa alcaama li tariqa almuridiya fa yaxuz awamir min alxalifa alaam wa huwa man awsaana bi awsa aljamaa huna bi an yastaqbilukum huna insha allahu taala wa yatawallawna diyaafatakum idan bismi alxalifa alaam nuraxibu bikum ixwa alaacizaa alqaadim min bilaad muxtalifa sayid alustaz saoud abu mahfouz min almamlaka alordoniya alustaz almuhandis munir saïd al amin al aam lil ittilaaf al aalami li nusrat al quds wa filistin min dawlat filistin al shaqiqa al ustaaz al docteur Fathi Abdoul Qadir mudir muassasatu ruwaad al aalamiya min Tunis al ustaaz Ziyad Bou Makhla musaacid al amin al aam lil ittilaaf al aalami kazaalika min Tunis al ustaaz Mouhamed Bou Arab mas'uul qism garb Ifriqiya fi muassasati ruwaad al aalamiya min ad dawla al jazaairiya al shaqiqa الأستاذ رضا الباروني مكلف بملف الحركات الإسلامية في مكتب العلاقات الخارجية بحركة النهضة التونسية وحركة النهضة معروفة جدا دكتور نواف تكروري رئيس هيئة علماء فلسطين من فلسطين طبعا ومن السنغال من طوبة طبعا من طوبة ومن فلسطين إذا أقول من طوبة فلسطين ما شاء الله تكروري Oustaz Ibrahim Barham mas'uul alaaqaat alxaarijiya fi hay'ati ulamaa Filistiin marhaban marhaban bikum marhaban bikum ramatna Shaam bilaad Shaam wa bilaad Tukruur wa Aasiya wa Sharq al-Awsat bi aflaaji kabidihaa marhaban bikum ahlan wa sahlan halaltum ahlan wa nazaltum sahlan alhamdulillahi aydan kaana fi istiqbaalikum haadihi al-majmuuca al-mubaaraka daa'iratu Hizbi Tarqiya wa macaali Sayyid Shuayb محمد المنتقى ابن الخليفة العام للطريقة المريدية ومستشاره الخاص ودائرة روض الرياحين أيضا دائرة روض الرياحين وهي اللجنة العلمية اللجنة المكلفة بالشؤون العلمية والثقافية في الخلافة العامة للطريقة المريدية ويحضر معنا معالي الدكتور سيد شام بوسى عبد الرحمن وهو الذي إن شاء الله تعالى سيتولى عرض إن شاء الله تعالى عرض وجيز عن مشروع مجمع خادم الرسول إن شاء الله تعالى الذي مررتم به آنفا فما جامعة طبعا ف... لا خادم الرسول لقب على مؤسس الطريقة اسمه الشيخ أحمد بامبا لكن لقب نفسه بخادم الرسول والمجمع مجمع الشيخ أحمد الخديم أي مجمع خادم الرسول نعم هو لقب نفسه بخادم الرسول مرحبا بكم مجددا ألخص ما قلت بالألوفية ñoo ngi dalal sunu gan ñu tedd ñi ci kër gi nga xam ne kër la gu bokk ci kër xalifa général des mourides kër gu bokk ci kër Serigne Mountakha yi li ma leen wax ci arab rek bërëb boo xam ne sëriñ bi moo taamu ngeen ñëw fi tey ñu dalal leen fi toppatoo leen fi euh, bu tarxiya comme ni ngeen ko xamee ci njiital suñu jëwrin ji suñu mag ju baax ji sëriñ Yusufa Jóob euh, wax naa ko léegi ci arab kër la goo xamante ni gu mat sëkk la di aw wanagu kees gu bokk ci keesu xalifa général kër xalifa général de Mouride moo tax jàpp li ma leen wax rek moom rek moo fi sañ a dalal li ganam wala boog kum jox ndigal rek euh, gan ñu tedd ñi fi ñëw jóge nañ fu bari ci àdduna si jiitu na ñu ñëwoon fi bi señ bi doog a liggéey bi booba kenn lañ woon xay na tey ji alhamdulilah day mel ne bi mu ñëwaat ànd naag ci continent yëpp ñu ngi ci jiital docteur Saoud Abou Mahfouz député la bu jóge Ordon mamlakal ordoniyya al hachimiya di réew mu tedd euh, ingénieur di borom xam-xam bu mag mooy sëñ Yuusu ki nga dendal yaag sëñ Abo ñu koy wax docteur Mounir Saïd moo jiite. mbooloom international bi nga xam ne dañoo jóg ngir jàppale Quds ak Palestine moom mooy suñ mbokk mi ngeen dendal ki ci toppaat docteur Ziyad bu max la moo topp ci moom moom nag Tunisie la jógee euh, ki ci toppaat docteur Mouhamad moo jiite wàllu Afrique sowu jant ci li ñuy wax mu assasa ruwaat al moom mi ngi jóge ba Algérie mooy suñu mbokk mi tedd mi ki ci toppaat euh, docteur Ridwanul Barouni moo mu ngi xaraka bi ñu tuddee parti bi ñu tuddee an nahda tunisiyya parti bu siiw siiw la def naa da ngeen koy dégg moom tunisien la moom moom moom moo fa joge ki ci toppaat docteur Ibrahim Barham moo yor wàllu relation extérieure ci hay'a bi nga xamante ni mbooloo mi boole borom xam-xami Filistin yi. niki noonu ba tey ki nga xamante ni nag mooy kilifa gi ca moom laa mujj ngir lim nekk kilifa gi mooy nu docteur Nuwaaf Tukruur tu ak xartul muqaddim li fadlihi lenn mu di nee na moom laa mujj tudd ndax moom moo leen dalal moom mi ngi tudd docteur Nawaaf Tukururi moo jiite euh, mbooloo mi nga xam ne mooy borom xam-xam yi jóge Filistin ànd ak sunu mbokk mu baax mi euh, docteur Irfan nga xam ne biñ fi njëkk ñëw nga xam ne nee leen kenn lañu woon ca yaatu na léegi ba ñoom ñëpp ñoom moo ñoom a àndoon ñoom nag euh, ñu ba ñu tasaaroo lañ ci àdduna si nit ñu wuute lañ ay ingénieur ngi ci ay borom xam-xam ay professeur université ngi ci ñu jiite ay ONG international ngi ci ay borom xam-xam a ngi ci kon ñëpp a ngi ci daal ñoom ñoo ñëw tey ngir seet si sëriñ bi dañ wax rek biñ fi daataa ñëw di ko yëgal sëñ bi li te tax a jóg ñëw si ko buñ bëgg nañoo ziar si yëngutu yi xamante ni mi ngi koy def surtout nag jëm jëm ci xam-xam di leen fàttali ne bi ñu fi njëkk ñëw booba université bi sëñ bi tàmbaleegu ko moom docteur Mounir mii waaye bokk na ci li ko ne leeral ko ne ko de am nañ yéene ci xam-xam ko tax a jóg danañ fas nañ ci yéene taxaw lu bari bari ne ko bala fee ñëwaat dana ci gis dara alhamdulilah booba tegaguñ xeer lii la sëñ bi waxoon ak yéene booba du ma ko fàtte ma ko bisu bu xat ne ma boo génnee leeral ko ko de am nañ ci yéene joo xam ne bu fi bala fee ñëwaat xolam dana sedd kon marhaban bikum incha allahu taala sawfa uti kalima eh, sayid rais aljamia sayid eh, rais hadihi almajmua almubaraka xizbu tarqiya cheikh Youssouf Diop lu yuraxibu bikum incha allahu taala bismikum wa bismi alxalifa alaam taban liannahu naib an xalifa alaam huna wa bismi hadihi almajmua almubaraka التي تتشرف باستضافتكم إن شاء الله تعالى ثم نعطي الفسحة أيضا لمعالي الدكتور سامبوس عبد الرحمن الأخ وهو مفتش أكاديمي دكتور min mushrifi mujamma alladi marartum bihi anifan incha allahu taala sawfa yu'tikum ard mujaz incha allahu taala an almujamma wa kalima al-akhira li ahadi saada duyuf incha allah antum taxtaaruna man docteur Nawaaf incha allahu taala. billahi min shaytani rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. أحاول إيجاز كلمة المسؤول الأخلاقي لهذه المنظمة السيد يوسف جوب لضيق الوقت أحاول أن أن أن أوجز كلمته يرحب بكم باسم الخليفة الشيخ محمد المنتقى كما قال الشيخ مرتضى هذا المكان من بيوت الشيخ من بيوت الخلافة وهي دائرة حزب الترقية أو منظمة حزب الترقية جماعة تأسست في الجامعة الكبرى في دكار جامعة دكار حوالي سنة 1975 على يد طلاب من مختلف النواحي ومن مختلف الطبقات تلقوا التعليم الابتدائي باللغة بالمدرسة الفرنسية حتى وصلوا إلى التعليم العالي walakin bi fadlillahi wa awnihi shaaru bi naqsin fi anfusihim shaaru bi annahum taallamu kulla cheyin ma ada diin aw ma ada alqiyam al islamia shaaru bi anna dalika yanqusuhum fa tasammaru wa azamu ala على استدراك ذلك على استدراك ذلك فتجمعوا وأسسوا جماعة للتعاون على البر والتقوى والتعاون على التعليم ومعرفة مبادئهم الإسلامية فكانت في أول الأمر الجماعة تجتمع في غرفة li ahadi tullaab fi fi fi ljamia kaana dalika yowmal yowmu sabt aw yowmal ahad fi saatin muaddada yatadaarasuuna fiha mabadi a diinihim wa yuxaawiluuna fatxa baab almaarifa li kay yaisu diinahum kama wajaba alayhim falamma kasurat aljamaa euh, wa tawassaat euh, alimu bi an la budda min euh, ijaadi makanin yajtamiuna fiha xaarij aljaamia hmm, fa zahabu fi makanin wa assasu fiha munazamatan yati fiha attullaab baada saat dirasatihim ittajihuuna ila ila hadha al makan li taallumi diinihim fa kama qaala kaanat uh, uh, al bidayatu yaktubuuna al quran al karim xatta wa qasaid al seyx bi al xuruf al fransiya al latiniya al xuruf al latiniya walakin bi fadlillahi wa azmihim uh, talabu min ahadi tulaab allazina taallamu alquran ayanu waxidan minhum yutuunahu ajran fi kulli shahrin li yuallimahum al al al al al abajad arrafu bi xudurikum huna walakin naktafi bi alkalimat almuabira li axina cheikh Mouhamadul Mourtada wa li alcheikh Youssouf Diop ونحن إن شاء الله سنقوم بعرض وجيز حول هذا الصرح العلمي الذي قمتم بزيارته آنفا وبعد ذلك ستشاهدون فيلما قصيرا حوالي تسع دقائق حول هذا الشرح يعني الفيلم المعماري التصميم المعماري وحول هذا الشرح نحن في مدينة طوبة أسسها الشيخ أحمد بمبا رضي الله عنه 1888 وكان هذا المكان غابة عذراء كان الشيخ يختلي في هذا المكان للعبادة وكان أهله على بعد ثماني كيلومترات حينما يأتون إليه كانوا يقطعون أغصانا من الأشجار لكي يتعرفوا على طريق العودة آه. دليل لكي يعرفوا العودة آه. لكي يعرفوا العودة وهو حينما أسس هذه القرية كتب قصيدة سماها بمطلب الفوزين دعا في هذه القصيدة كل ما أراده أن يكون في هذا المكان وكان من بين أولوياته في هذه الأدعية أن تكون مدينة علم وعبادة يقول في هذه القصيدة يعني يخاطب ربه ويناجيه واجعل بنائي بناء علمي wa amalin bi sunnatin wa xilmi wajcalhu daban maskana taallumi wa mawdia alfikrati waltafahumi wa mawdia al irshaad wa maskana al irshaadi wa taalimi wa maskana taswibi wa tafhimi wa daa allah subhanahu wa taala an yakuna hada al ism tayammunan bi tuuba taarifunaha saña Touba ah wali dalika asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu c'est avec un immense plaisir un grand honneur que nous avons été honorés par le vénéré euh, par le vénéré khalife Cheikh Mamadou Mountakha qui nous a accordé euh, l'insigne honneur de pouvoir vous accueillir en son nom dans un cadre qui est un cadre de culture un cadre islamique, un cadre d'enseignement, un cadre également euh, d'accueil des éminents hôtes qui viennent au nom et pour le compte de Khadim Rassoul. C'est une institution qui est née, euh, certes, en milieu universitaire. Comme vous le savez, le système éducatif sénégalais, c'est la langue française. Mais nous, nos personnalités ont été façonnées par Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Moussafa. Il nous a façonnés avec des valeurs. Mais nous ne pouvons pas couper de façon définitive euh, la, la, la, barrière linguistique qui est là. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est les valeurs, c'est le système de valeurs. C'est les valeurs islamiques et également ce que nous partageons de façon indéfectible, c'est l'islam. Al-Qur'an al-Karim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Bayt al-Haram, Euh, également aussi, même la langue du Saint-Coran, c'est l'arabe. Moi, mes enfants, et tous mes enfants parlent l'arabe. Ne parlent pas le français, mais moi, j'ai fait l'école française. Donc, euh, vous êtes dans un cadre où vous serez à l'aise. Quand on va vous visiter les écoles ici au niveau de la Dara vous allez vous rendre compte que c'est une école où la langue de base, c'est l'arabe. Euh, la langue française et la langue anglaise viennent comme des secondes langues, deuxième langue, troisième langue. C'est comme quand on apprenait le français, l'arabe était une troisième langue. Ça, c'était l'administration coloniale, c'est l'héritage colonial, on n'y peut rien. Comme Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes dans un cadre euh, qui est un cadre dont la tutelle légale revient au Khalif général des Mourides. Cela veut dire que j'aurais pu ne même pas parler. Parce que nous sommes un et indivisibles. Cheikh Mamadou Mourtada, il a parlé au nom du calife. Cheikh euh, Chouaïbou, il est là. Il est fils du vénéré calife. Donc, il n'y a pas trois paroles. Il y a euh, Nous et eux. Nous ne sommes pas deux. Nous sommes un et Donc je pense que la parole pouvait être une seule et même parole. Dès lors qu'on m'a accordé l'honneur de, de, de, de, vous adresser les salutations très respectueuses de notre organisation, je vais me résumer en deux mots. C'est une organisation qui est née à l'Université de Dakar. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de la création de cette organisation Nous étions des étudiants qui ont appris le français qui ont suivi tout le cursus scolaire et universitaire, mais en français, et on sentait en nous un vide. On sentait un vide. Parce que euh, ce vide était causé par ce qui manquait dans le système éducatif sénégalais, c'est-à-dire l'éducation aux valeurs islamiques de base. Mais la lumière divine vient de façon providentielle. Nous avons senti que ce vide devait être comblé. Les aînés qui ont les membres fondateurs de cette organisation, ils se sont réunis et ils ont dit, nous comme système de valeur et au sein du campus universitaire, nous allons essayer de compléter les valeurs qui nous restaient. Et en ce moment, c'était en 1975-76. Donc ça fait au moins 46 ans aujourd'hui. L'organisation est née au sein du campus universitaire. Plusieurs générations se sont succédées en tant qu'étudiants, travailleurs de toutes les catégories socio-professionnelles, mais chacun, après les études, ne quittait pas l'organisation. Et finalement, on avait plusieurs cellules qui étaient affiliées à l'organisation. Les anciens étudiants et sympathisants, les étudiants et nos, nos cadets qui étaient les élèves. Euh, on était au début au sein du campus, mais on a créé un cadre en dehors du campus pour accueillir les étudiants en dehors des heures d'études. Parce qu'en dehors des, études, des heures d'études, c'était les, les, les, distractions, c'était les futilités mondaines, c'était donc des activités qui, qui, qui, qui, qui favorisaient la corruption des mœurs et des valeurs. Maintenant, avec la création de ce cadre, C'était une mutation. C'était une phase de rupture. Maintenant, il fallait rester dans un cadre où, après les études, on pouvait assimiler les valeurs culturelles islamiques. Au début, pour apprendre même à lire le Coran, il fallait utiliser l'alphabet français, l'alphabet latin. Mais, mais, mais après un an, deux ans de pratique, c'était fini. Donc c'est un cadre où il y a plusieurs activités, des activités d'études et d'enseignement, des activités de, communication, des activités d'animation, des activités liturgiques, de culte, etc., etc. Et toutes ces activités contribuent donc à façonner une personnalité musulmane correcte, acceptable. Après également, nos membres ont pu créer d'autres antennes à l'intérieur du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes présents dans tous les continents. Nous sommes présents partout en tant qu'organisation qui ne réunit plus seulement des étudiants, mais actuellement, c'est une organisation dont la tutelle légale revient en toute exclusivité au Khalif général des Mourides. Nous sommes comme des soldats de la communauté mouride. Les instructions et les recommandations du Khalif sont, sont exécutées de façon automatique, sans réflexion ni murmure. C'est ça notre force. Nous croyons et nous avons foi en notre autorité. Nous savons qu'il s'est sacrifié pour la cause de Dieu. Donc nous devons nous sacrifier pour sa cause. Nous savons qu'il ne nous recommandera jamais de faire autre chose que fi'lul khayr, qawlul khayr, niyatul khayr. Niyatul khayr, qawlul khayr wa fi'lul Donc c'est pourquoi nous lui devons obéissance. Donc nous avons des écoles à partir du préscolaire jusqu'au baccalauréat actuellement. Nous allons donner à Serine Sambousso beaucoup d'élèves, hein, à Abdoulad actuellement. Donc il y a au moins trois générations de bacheliers qui sont en train d'attendre pour entrer au niveau de cette prestigieuse université, Cheikh Ahmadou Khadim. Donc euh, euh, euh, nous vous encore renouvelons euh, notre, notre tous les honneurs que nous éprouvons, que nous avons de vous accueillir en ce lieu. Euh, puisse Dieu vous, vous fortifier davantage dans la noble mission que vous êtes en train d'exécuter de, de, de au nom et pour le compte de toute la communauté musulmane. Vous êtes en train de faire du bien qui nous concerne et qui concerne tous les autres musulmans. Donc il faut prier pour que Dieu renforce votre organisation et vous accorde un succès pour que le peuple frère palestinien puisse également s'épanouir davantage dans l'héritage islamique que nous partageons avec eux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. طريقة يعني نمط علمي وتزكوي وروحي هذا ما تحتاجه أمتنا فالحمد لله أننا في هذا اليوم رأينا أصالة التصوف وانتمائه إلى الدين بشكل حقيقي فجزاكم الله خيرا في هذا اللقاء الذي سعدنا به والله وهذه المدينة المباركة المنقى من كل دنس وسوء والحمد لله وهذا فعل الأخيار وفعل الصالحين إذا حلوا في مكان فإنهم يرتقون به هذا اليوم الصرح العلمي الذي تجولنا به يا إخواننا هذا شيء عظيم ونحن كما تفضل أستاذنا أبو حبيب عندما كنا في المكتبة مستعدون للتعاون وللاستفادة نحن بحاجة أن نستفيد من هذه الكفاءات والإمكانات والقدرات وأيضا عندنا مجال للإفادة والتقديم هذه جامعة جديدة عريقة ولدينا كما لديكم ولكن نريد أن نتعاون نريد, نريد أن نلتحق بهذا الشرف أن يكون هناك عدد من علمائنا وأساتذتنا وكفاءاتنا وطلابنا يلتحقوا بهذا الجسم ونحن مستعدون للترتيب الأمر الآخر يا أخواني نحن سمعنا حقيقة أنا يعني أستحي أن أقول ولكنها الحقيقة أن معرفتي محدودة جدا بهذه الطريقة المباركة التي لا ينبغي لي أن تكون وأنا مختص شرعي وشيخ لا ينبغي أن تكون معرفتي محدودة ينبغي أن يكون لي لكن بعد المسافات ويبدو هذه الحقيقة الطريقة على ما لديها من علم وبذل وجهاد ونريد ونحن نثق أنها كذلك أن تكون القدس والأقصى على رأس أولوياتها وهي كذلك ونريد أن يكون لها موقع في المسجد الأقصى المبارك كرسي علم مكان تدريس اهتمام مباشر في المسجد الأقصى المبارك أفضل الأعمال على الإطلاق بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان هو العناية بالمسجد الأقصى المبارك قال صلى الله عليه وسلم في حديث دائما أذكره حديث أبو ذر الغفاري قال تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل صلاة في مسجد رسول الله أم في مسجد بيت المقدس فقال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلاه إلى هنا الصلاة في المسجد النبوي أفضل ثم قال ولا ولنعم المصلى هو ولا يوشكن أن يأتي على الناس زمان هذا هو زماننا أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض بحيث يرى مسجد بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا وفي رواية خير من الدنيا وما فيها فنحن يا إخواننا وطبعا لسماحة وفضيلة الخليفة الشيخ محمود المنتقى محمد المنتقى حفظه الله وأمد في عمره وبارك في عمله أن يكون لمسجد بيت المقدس مقر ومكان في كما تفضلتم عندنا المقرات المباركة آه نعم أن ي... بالضبط أن ي... أيوة أن تدخل هذه الجامعة المؤسسة نريد أن نتفق أن يكون لهذه الجامعة مساق تعليمي لكل متطلب جامعة مطلوب من كل طالب أن يدخلها أن يتعلم وعن القدس ويتعرف عليها بالتفصيل وأن يعيشها ويعرف مكانتها وهذا أعتقد أنكم رسالة تقدرون عليها ثم رعاية حقيقة هذا العمل المبارك يقتضي أن يكون له ارتباط مباشر في المسجد الأقصى المبارك في باحاته في مدارسه يا إخواننا اليوم الكيان الصهيوني يريد أن ينزع هوية الإسلام عن المسجد الأقصى المبارك ليس عن القدس عن المسجد الأقصى المبارك يراد أن يهود هو يقسم ليهود بعد ذلك ولن يكون إن شاء الله ولكن مثل هذه المؤسسات العظيمة المباركة تستحق أن يكون لها قدم السبق ومع صلاح الدين الأيوبي جاء المسلمون من كل مكان وطبعا الطرق الصوفية والصالحون وكل فئات المسلمين جاءت من شتى الآن عندنا أحياء في القدس لكل بلد من بلاد المسلمين نريد ها بالضبط نريد نريد أن يكون مقر السنغال طوبة الماتوريدية موجود في المسجد الأقصى المبارك شو قلت أنا لا المريدية أنا قلت المريدية غلط خلطة مطبعية المريدية نعم لهذه الطريقة المباركة أن يكون لها مقر في المسجد الأقصى المبارك يا أخوان نعم مصطبة علمية وبناء تثبيت أهلنا نعم نحن جاهزون تثبيت أهلنا في القدس يا إخوة أبر الأعمال بنص الحديث كما ذكرت أبر الأعمال وأرقاها والله ونسأل الله سبحانه وتعالى وأنتم أهل أن يكون لكم دور في هذا الموضوع العظيم المبارك جزاكم الله خيرا ونحن معا نحن طبعا نجدد دعوتنا للسادة العلماء والإخوة الفضلاء هذه المباني العلمية والمقرات والمؤسسات والمعاهد والحزب الارتقاء أو الترقي الترقية نعم هذا والله هذا شيء عظيم الحقيقة هذا فكر ينبغي أن يستفاد منه نحن نستفيد منه الحقيقة ونقلد ونقتفي الأثر وأيضا أنتم لا يجوز لكم أن تحصروه بينكم لا لا بد أن يصدر هذا الخير لا بد أن يعمم لأن المسلمون لأن المسلمين ينبغي أن يستفيد بعضهم من بعض نحن جسم واحد يا إخوة جزاكم الله خيرا أنت رقيب ناسي بعد ارتيانته كلي كليتي أنسي ورلوان يا الله أنت المجيب لاسم قادا بخيرا إجابة منك لي لاخترت يا الله وإنك الواسع الباغي ولي أبدا نزهت توسئة بالإبق يا الله أنت الأكيم لاسي أبلغتني لسوى مظائني وما أو تسوء يا الله أنت الودود لسين قاد الموادة لسرمدا بريلا والقرب يا الله أنت المجيد لسي بان المجادة وخد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 ñoo ngi daje fi tey ci kër Serigne Mouhamadul Mountakha ginnaaw bi nga xam ne dalal na ganam ñu tedd ñi mu amoon tey muy mbooloo moo xam ne ñu ngi jógee fu bari ci àdduna si ci gox yu fasantikoo ci comme niñ ko waxee léegi am na ñu ci jógee ordon tudd nañ leen léegi ñoom ñëpp seen tur ak ñu ci jógee Palestine ak ñu ci jógee Tunis Tunis ak ñu ci jógee Algérie ñu bari nekk ci ki jiite boroom xam-xami Palestine yi mi ngi ci. mooy muy docteur Nouwaaf Toucourou mi ngeen gis mu lu weex li ki nga xamante ni mooy relation extérieure ci borom xam-xam Palestine yeeg àdduna si mi ngi ci. Euh, nit ki noonu ba tey ku bokk ci parti bi ñu tuddee Haraka Nahda Tunisiyya mi ngi ci ak Cheikh Fathi mi nga xam ne moo jiite ONG bi ñuy wax Muassasatu Ruwaat al Aalamiya mi ngi ci. Euh, docteur al muhandis ingénieur Munir Saïd mi nga xam ne moo ji jiite itilaaf al aalami mooy mbootaay international gi nga xam ne ñooy jàppale Quds ak Palestine mi ngi ci. ak sunu maneen mbokk moo xamante ni mi ngi jóge Ordon Jordanie muy gan ñu tedd ñu yittewoo euh, dossier mbir yi nga xam mooy mbiri jullit yi surtout mbir yi nga xamante ni mooy ma nga nekk ca Quds ak Palestine yàlla andi woon leen fii tey ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha kenn ci ñoom mos na fee ñëw lu yàgg li bëgg man ñeenti at ginnaaw bu nag la waajaat waajtaay bu gën a yaatu bi indaale mbokkam mi nga xam ne day mel ne tey bi mu ñëw dafa jublu ànd waa àdduna sépp euh, sëñ bi dalal leen bu baax comme ni ngeen ko xamee ñu dem boole leen ak doomam sëriñ Chouaïb bu Mbàkke mi boole leen ak daairatu Rawdu Rayaahin ci njiital sëriñ Ahmad Badawi ni ki noonu ba tey boole leen ak daairatu bu Tarqiya ci wàllu toppatoo yi yàlla dogal na nag ni ko sëñ bi bëggee woon lépp amee na ne yóbbu nañ leen fépp eh, ci ziyaare wukaay yi bibliothèque bi jumaa ji université bi doog a ñëw fii nag mu dalal leen waxtaan ak moom kàddu yu am solo yi dégg lool ci ñoom ndax li ko ñor rek moom sëñ bi mooy eh, yëfi jullit yi Euh, mbiri lu aju ci jullit yi moo tax ñoom bi ñëwee dafa mel ne liñ ko wax dana leen li ngeen mat a xam daal mooy lii leen ñor muy lu ah, muy lu dossier bu yitteel jullit yi muy Quds ak Palestine xam leen ne jàpp leen ne fii la tàmbale mooy ku koy def waa Touba ñoom nga ci dimbale moom Cheikh Mamadou Mountakha moom nga ci dimbale moo la ci jiitu te gis ngeen taxawaayu rafet yi am yàggul rek bi jafe-jafe amee ñu leen di bombardé leen néewal doole gis ngeen wax ju am solo jooju nga xam ne bind na ko ak yeneen taxawaay yi am na ne sax yu xaw a nëbbutu la waaye yu dëgër a la defe ñëpp xam nañ ko ndax sañ sëñ Muntaxa naka jekk moom lislaam la fi nekkal bépp dossier boo xam ne laal na lislaam ji rek da koy yitteel lool lool lool lool lool lool moo tax mu fonk ñu mel ni dalal leen bég ci ñoom bu baax a baax wan leen ne daal na ngeen xam ne seenu mbokk ngeen bàyyi fii seen xarit ngeen bàyyi fii koo xam ne yéen bokk lu ngeen bëgg ngeen bàyyi fi ndax ku bëgg lu baax rek la koo xamante ni lépp lu nit di def te mu wóor ko ne lu baax rek la yàlla rek tax mu di ko def di ci liggéeyal lislaam bi ak jullit xam ne moo leen ciy juutu ca moo ci nekk seen ginnaaw kon sant nañ bu baax ñoom mbooloo mi nga xam ne ñoo ñëw tey tuur sëriñ bi ak ñi ñu àndaloon xam naa dañuy jox kenn ci ñoom rek mu jël kàddu bismillahi rahmaani rahim باسمي وباسم إخواني الذين شرفونا في هذا اللقاء وفي هذه الزيارة المباركة لمدينة طوبى العامرة ولشيخها وإمامها الخليفة المنتقى ربنا يحفظ ويبارك وإن شاء الله جئنا من أجل السلام عليه ومن أجل الاطمئنان على صحته وشكره على ما يقوم به من أدوار في خدمة الإسلام والمسلمين وفي قضية القدس وفلسطين وما يقوم به من دور في رفض الاحتلال وفي العمل من أجل تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك ونحمده سبحانه وتعالى كثيرا أن وجدنا في هذا البلد الكريم كل خير وجدنا فيه العلم وجدنا فيه التربية وجدنا فيه التزكية وهذا بفضل الله مفخرة للأمة الإسلامية أن نجد هذه الدعوة المباركة منتشرة هنا في كل أرجاء السنغال وفي مركزها هنا جئنا للبركة وللتعاون مع إخواننا فيما يكون فيه خير ونفع لنا ولهم إن شاء الله في مجالات العمل المختلفة هذه المدينة فيها نهضة وفيها جامعة ما شاء الله ستكون منارة للأمة كلها إن شاء الله وسنتعاون معهم في كل مساحات العمل الذي يمكن أن يكون فيه خدمة ونفع لأهلنا هنا في طوبة وفي السنغال عامة وفي فلسطين وفي العالم الإسلامي قاطبة وجزاكم الله خيرا وشكرا لأهل السنغال ول